jërë ngeen jëf sëy bi yàlla na ci yàlla def barke alhamdulilah rabbil alamin yàlla na ci yàlla def barke félicitation yàlla na ci yàlla def bii nag takkusaanu suuf bii nag surprise la xaar leen ko takk gu rëy ci kanam xool leen seen téléphone u jëkkër yi xam ni oustaz a ngi dem de membre félicitation merci combat bi jeex na ma dugg ci internet bi gis ay collage tay nga ñew ni da nga soxla ma recevoir la mais boobu léegi ya nga nan jus rek nangoo wax. boobu ma ba empereur. ay sa lu ko sa si la buri rek fi ne. ah takku ci ah yàlla baax na xel day na daj na. mbër ba jël couronne ku bind. ah. nga bëgg na la dina la tëddee ba nga sonn nga sonn jaaxle su fri sa xel dem dama ne la mu gàdduwaat kuroonam dem tëdd <laughs> <laughs> ñu am mari fi sa jabar ñooñu wujjewuñ te ku sa fekk jëlee la fa lu leer laa la wax waaw man tam looloo ma jaaxal di déggoo li ma la ah, yow tam yow tam yow tam eh, lu tëng tëng doy tëng tëng koy dëpp ñooñu wujjewuñ te ku sa fekk jëlewu la waaye léegi man tam loolu jaaxal na ma de waaye tam daa mel nag muuraay gi daa daa mel ni ñaareeli fan nag dañoo yóbbu nag kitu aawee de léegi de muuraay yaa ngi dem ñi nice. Eh, dégg naa dafa dindi muuraay bi de. waaw même ah, daa mel dama mu teg prix balaa ko de ah, na ci prix bi. waaw laa ba génn ay béy bi xeer. waa nag moom nag dafa def erreur xam nga lu tax. mënoo am jëkkër xale am jëkkër soo biir am jëkkër bu jantale. bu mel buuru làmb ji mhm. bëgg détail bëgg kaa bëgg ay galaa fu ne mu dem fa soo tegee waale mu fecc soo tegee Pape Diouf mu lëmbal soo tegee rimba papax mu dàq la ko fecc ba téyex ko wékkoog wékko wékkoog papaanaa Zador wékkoog papaanaa Alburaax ñu ànd ak ki nga xam ne bés bu ñuy bés bu ñu dee moo leen di jullee muy papaanaa TFM mi waaraate oustaz bi gaaral nit ah waa léegi bàjjan ko xale yaa ngi signalé ci suuf de nee nañ dafa am benn animatrice bu wan lor. animatrice. waaw. bu ah, am na ku ko développé de waaye daal daa mel ni da da koo rek daa mel da koo ñurumtu rek. waaye nag sama xel